waaw ci la wunta la wunta waaw damay ziar bu baax a baax moo dëkk Njee hmm. ak ku ñuy wax Mor Jëng Poolik ñoo dëkk foofu yaa ngi bool de mag ci benn bi sëriñ Ibrahima ni Aliou Diouf boo mu ni Faal mu ne ko yomal xiyaam de Aliou si na Aliou bu génnee mm-hmm. bàyyi ah, dañ ko def mm-hmm. jëm si bis pénc nga bàyyi koo boox jëm si bis pénc su ngeen dajee du la mënal dara te du la ëpp mbooloo bu mu defar. mooy sañ-sañ yooyu. moom wax ni ma bi may liggéey Cheikh Rafal fas wu jël première ci course du daw wenn xel ñaari xel lay daw ci wenn xel. alors ah, <laughs> ne ko ñaari xel ci wenn xel ma jaaxal. mu ne danaa téppét bu tabal tabla ji daanoo. Hmm. drapeau de danaa téppét. bu dawe la ñaari téméré mètre bay dugg juroom fukkel ba bu gaay bëggé fon falal ji mu ni tépétat bi mu nee tépétat ci wom bi la daan si tay ma may ko ndox mu tok mu ni ma dama defoon ma ngi ci course bi daw ci ñali juuf mo tay tay Cheikh ibrahim Fall oh exact Cheikh Fall jaar ak mom baram ndiireen nag ah. Baye ndir tay hmm. mam Salim Fall ko defal sëñ ibrahim Fay Noron ah. sëñ lamine sila ko defal ñoom ñaar le Sinaat amoon lañu. waaw dañ leen daal tuddee Ousseynou ak Assane. bàyyi <laughs> bàyyi ngir ñëw yor pañe kilo guro. Mhm. jikki sëñ maam Saliou Fall. ni ko damaa bëgg na yaxantu ji te yàlla damaa xiir ci gura. Mhm. maam Saliou Fall tànn ca ñeenti doom. Mhm. sànni ko ci xeble yi. xeble gu doomu gura. ba yàgg. mu tànnaat. yeneen ñetti doom muy juróom-ñaar mu sànni benn ci jaw ji kenn gisu ko maam Saliou mm-hmm. mu fët benn bi ci suuf kenn gisu ko mm-hmm. mu téye benn jikkuwaat bu xool ci kaw xool suuf ni tuf ci guro gi ni ko am dugal ko ci pañe yi ngay jaay ngoro doo ko takkee du tas tey mm-hmm. ko jéggalu ñu jéggal la néew bu ñu xar ci sa sëb dëj nga dem àjjana koo ci may bu ko yëy jàngoro ju tëb docteur ak am ak ab jibar mu wér ah di bàyyi laaj bi man man man mbaa ña ngay jaay guro ba tey ba tey <laughs> ah, ba tey boo demee ndiireen ñu jox la guro boo guro fa loolu ko ndiireen googu kat jar naa de waaw ndiireen ci ginnaaw Touba Toul rek ndiireen waaw ak kaa mat waaw xaar leen ñu de xaar leen ñu bu wóor a moo jur Saliou Ndour incha allah ah, ak Modou Ndir ñoom ah, ak gaajooñ kooku de du guro kese waaw ku jaboot la déedéet dara maam Saliou ni ko Ablaye Ndir mu ni faal mun ko def góor wàllu yu ni ni geesu yombe goro xam nga gone yi boo nee boy duñ ko xam ni geesu yombe gola def góor wàll loolu noonu la ma yombe loolu la waxan may bàyyi tombe nag Baye Mor Ndiaye waaw ni ko doo fi bàyyi doom doo am kër mbaa ci sa mujjug dee ngay am kër bàyyi Mali Ndiaye mais fa ne di xalifaam boo faatoolu si séq doo ko bàyyi way fakat na ci nguurug yalla gi ko xani bu faatoo nga don ko ci loolu sa di sottee motax malik Malick don doon yàlla mu yàgg lool te ànd ak wér Baye Malick ñu koy jaam bu baax baax wax deug yalla bay malik Ndiaye mu bay Mor Ndiaye tombu dal wa bay Isma Joxaane ñom nak Isma Joxaane Mor Ndiaye Jum hmm. ak Baye Yaram hmm. ak ma xujjam mesare maam yi gànna mesare